sëriñ dama doon déglu sa vocal bi dégg naa ko kon ma continuer rek ci leeral yi kon loolu moo waral ma porté parole bi ci turu sëriñ dugg Bousso Dieng waaye man doon ma sax ku fa waroon a jël kàddu sëriñ Modou nag comme sama xarit la sama wëllëral la ñaan na ma jëlal ko kàddu ci loolu ngir day sóoraale ni comme moom xam nañ ko ci langue politique yi te kilifa la ci mën na am moom bu ca waxee ñëpp dañ koy jàpp ni mbirum politique la ma porté ko parole boobu. Euh, daara daara euh, daara yi fa ñëwoon itam amu ci jenn daara joo xam ni man masata jaxate maa la fa woo wootewu it njàngum kaamil mi sëñ Modou Bousso Dieng moo woote njàngum kaamil mi ca daara yi boppam ja ca Ilipoor woo fa lu toll ci fukki sëriñ daara ak benn fukki sëriñ daara yooyu ak benn it amu ci benn sëriñ daara boo xam ne man xam naa la ba di la fa woo euh, turi daara yooyu ngeen dégg ñu jurkóo lim itam ñoom ñoo bind ab liste jox ma ko moo tax la ñu jukki ca lañ ca joti jukki ma jàpp ni nag eh, ab jullit buy jàngal mbokkum jullitam ab kaamil su wooyee mbokkum jullitam ni ko damay wàccee ay kaamil war naa ko caa mooy guji ci wàccum kaamil su fekkoon ne daf maa woo ci ndajam politique mën naa caa bañ a wuy mën naa ca bañ a dem waaye lii moo ma ci yóbbu wax naa ne itam euh, journaliste bi nga xam ne moo doon jàllale information yi dafa am lu mu yokk ci vidéo bi lu ci bokkul am lu mu wàññi ci vidéo bi lu ci nekkoon ñaar yooyu moo di bu jëkk bi bu jëkk bi dafa wax ni Massata Diakhaté nee na képp ku nar laal taa'iru saar dangay jaar ci seen kaw soog a jàll ma ne loolu amul du dëgg su fekkee am na taw def naa beneen vidéo tey ci ngoon wax naa ko ca suba dana génn bu fekkee am na na teg benn vidéo bu ñu waxee ni man bu ma waxee ni euh, taayiru saar ku ko nar a laal da ngay jaar suñ ko jàll loolu amut waxee journal islam moo ko ca yokku ngir bëgg jaar ci journalam beneen bi ci des daf ma laaj ca fin ba ni ma daara yi ban problème lañ am ma ne ko ah problème daara de xëy na bari na waaye man sëñumaa wax ci daara ndax daara yi am na kuréel goo xam ne ñoom la ko sëriñ bi dénk soo demee ci ñoom nag ñañ dénk loola boo leen laajee lan mooy jafe-jafey daara danañ la ko wax waaye man sëñumaa wax ci jafe-jafey daara mu mel ne damay wax ci turu kuréel googa te turu kuréel googa indiwuma fi turu kuréel googa waxuñu ci li ñuy def nii defuñu ko ci turu kuréel googa sëriñ daara yii fi teew li ñuy def nii ñoom la engagé engagé wul kuréel googa wax jooju itam digguma fenn ci vidéo bi fuñ ko tege kon lii mu ma fa indi lii ma ma jotale ci kàddu yi lii laa fa wax mu des beneen mbir mooy bi ma dégloo réaction yi ñu baree bare bari ci waa kër Ousmane Sonko yi dañoo jàpp ni ta jaxate da doon défendre ta irusar pour Ousmane Sonko wala da doon pour attaquer Ousmane Sonko dedet loolu amut ndax man mësuma xam té limay wax ni maa ngi wax barku Cheikh Abdoulaye mayakar yaakaar mësuma xam ni ta irusar ak ay Ousmane Sonko mas nañ seq ben règlement de compte wala seq ay problème xass wala seq ay problème politique mësuma ko xam na digg na ci radio ñuy wax coowal Ousmane Sonko ak Mamour Diallo. te it coow it mosuma xam sax nu mu demee ndax man du ma suivre ay réseaux sociaux du ma suivre ay nu mu tuddati ay Facebook man sama xam-xam soriwul si loolu. bi may def conférence de presse ci kàddu sëñ Modou waxtu midi midi et demi wallaahi laasim samam xel demul ci Ousmane Sonko xalaatul Ousmane Sonko sama xel nekkul ci dal ko dal ko Ousmane Sonko parce que sequñu ko xamaluma ko lu bon lu ma koy waxal mbaa lu baax lu ma koy waxal mbaa dara lu ma koy xamal amul benn intérêt attaqué Ousmane Sonko loolu tax moom jóg sëriñ bi itam lim ma wax mooy ci Tahirou Sarr dafa am ay sociale yu mu doon def ci màggal Touba gi Tahirou saar ay sociale yu mu doon def ci màggal gi sëriñ bi nag ne comme sàkku na ci moom ay ñaan te doon na def ay sociale yu am solo ci màggal gi da ko ci da ko ci ñaanalaale loola boo indi ñaan nga may wax encore une fois man awuma benn intérêt ci di farak kenn ci ñooñu ñu tudd muy ñett ñooñu parce que man xaw ma Mamour Diallo xaw ma ko xaw ma Ousmane man sëñ Modou Bousso Dieng laa xam encore une fois mu leer li ma doon ci kàddoom laa ko doon waxe waxewuñu ko ci turub jenn daara wala benn kuréelu daara daara yi fa teewoon nag loolu ñoom la engage daara yooyu nag ku leen bëgg a xam kan kanak kan kan la ak fu ñu dëkk sëñ Modou Bousso Dieng këram ngi nii ci gaar bi soriwut tukkiwut tuxuwut daayut ku fa loo ci bëgg laaj boo ko laajee dana la ko leeralal loo ci bëgg xam boo ko laajee dana la ko dana la ko wax eh, maa ngi taaxirlu foofu ba xam su fekkente doyut itam ngeen wax ma